loolu day wane rek ni dafa nekk ci xolu nit ñi bu wanee ni nit ñi dañ koo bëgg li nga xam ni moo am mooy démocratie day toll fa nga xam ni dangay bàyyi peuple bi ñu mën a tànn ñi nga xam ni ñoom ñooy seen dirigeant tey ñëpp dégg nañu état de santé du président Ousmane ni mu demee kon li ñuy xaar ci président Macky Sall mooy mu libérer que libérer aussi tous les autres détenus politiques. libérer Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko ci boppam dafa incarner mu nekk tête de aussi ñu ànd ci loolu jaxase wu ak jeunesse bi ak peuple sénégalais pour ñu xeex pour que moom ci boppam Ousmane Sonko ñu libérer ko tous les détenus politiques du Sénégal. lii dafa war a jeex dafa war a jeex Ousmane Sonko ci kaso bi du place am. dañ koy bàyyi keneen koo mënti tudd ci kaso bi muy Karim Karim ñun ñu ngi ànd ak moom yoon wu mu xàcc ñu bokk xuus moom si yoon woowu ba yàlla may ñu ci ndam lii day jeex lii dafay jeex